bëgg doon nga bi mën na ko jël. waaw. fi muy mat boobu soof naa fi bal bi ngay topp de ah. ak ak comme comme ci match bi yooyu laa Moussa. bii du baax mooy baax mooy mooy bii jël kii.

ñu bële ñu. très bien yaa ngi waxoon dara. non ruuj naa. Eh, del laal bële eh, lañ sama sang bi de naa la mbëkk soutenir leen concentré hmm? wu rek nga jam la ko bool laaj. Eh. monsieur mën na de daa ratali daa ratali Better. loolu nu ko defoo. nga xëj daa yéex daa yéex waa ji sax. kan. Mara toogal rek tranquille kenn du rek. Moussa bi nga bëggee jël lu ko wax. Ah? est-ce que jël na ko. maanaam dem. Issa ñu ngi ñëwal leen naa ne yaa bañ seen suñu dafa bari suuf de ay góor kenn ko ne xale la xale la moo tax xamul dara la ñu wax Ibrahima am na ay yu moom ñu war a def ay sketch ay booy. sketch lan la. ay yu gàtt rek. ah. ay yu gàtt rek. fu mu dëkk daal woo nga filmé mu dëkk. Daaru mën comédien la comme comme comme tamate comme comme marron comme kii nu mu. lii bu mis bis du koy assuré. moom penalty la yàlla léegi ci doo mën a am. léegi xel mu ndaw mi ñu koy dóore. Messi kay moom moom. mooy yàlla daal la am. waaw walaakay su ma yore la fekk ñëw sa gën a la. ah. su ma yore la fekk ñëw sa gën a la. Belum? Gue isi itu dulu, gue kau itu dulu. Nabi, mu ñuus ko de lii jege na moom Porque si no, no compré paro. Manga, dañuy sonn gars dañu leen gaañoo ñu ngi yore dina bëri nga woo estilis yi ñu ñëw bokk. ñu solo la gaa yi nga moom. ba ma la ma wax tout ma mu ne ma yow sa xel bañ fay la sa bopp parce que gaa yi fu ñu waxee nga wuy mu bis boo mën xew gaa fu ñu mën tey xanaa 100 pour cent Modou bi laa bëggoon ministre Mbacke dóor ko Mbacke Fashion Week hmm? ma ne dóor Mbacke communication bi laay def sport bi daw mu communiqué rajo bi jaree ñu fay sax ci ne buñ la fi gaañ ci marché bi génn doo ngay bëgg bàyyi doo ngay bëgg moom selu tibia bañ laal la dal na ma daal sëriñ bañ na la fi kong ñu ko lay wax ba ñu naan Congo ban ci ñoom xel mi ci bàyyee. 4 bleu 4 bleu. 4 bleu. 4 bleu. léegi ñu génnee nag 4 bleu. yooyu tooy affaire la ñuy tàllal rek. Thank you. Thank you. ah man de gëj a. mais ngooñ la jox daal. comme ngooñ la jox kay suñ bàyyi nii di génn. waaw loolu aussi monsieur Image bi rafet na image boo fi am. bi nu ñuy ñëw ndongo lépp naa leen. maanaam dañu si bëri ni ñu bëggee foofu. dañoo am fu ñu bëggee rek. ana suñuy fubal kay. waaw bëgg na trop. ah yooyu boobu neex

bëgg bëgg bëgg wétu bi def gars yi ñëwoon ni. waaye buñ góorgóorloo tamit réalisé. commencé xandaalu waaw. mën nga leen ci match bi seen diggante Ocass. waaw suñu rek tout le temps rek lii moo fi am quoi mais nag sport foog ñu jiital leen quoi ñett yi moo am victoire défaite nil mais képp ku jóge sa kër ñëw yaa ngi indaale victoire mais suñu borom mooy dégal li mu dogal rek moo loo mën a nekk suñu borom moo dogal tey jii mënuñu yóbbu 3 points 2 points la euh, ñu yóbbu ñu nag Ocass nag benn lañ parce que sorewul ay doomu ndey lañ. lii rek moo ñu boole ko soufflé moo ñu boole moo ñu taxalee su paree kenn ko nekkaat na ci li nga nekkoon euh, beneen moo gars yi foog ñu comprendre ne football moom lii fi nekk parce que gis nañ tout temps équipe di mané ba ba minute dernier moment ñu fekk fa remonté ko mais heureusement ah waaw parce que équipe dina toll foo xam day am temps fort am foo xam day temps faible sa temps fort boo ci deful li nga war a def sa kay boo temps fort mën na ci indi leneen sunu borom tamit xëy na booy def nañ la tout pour gagner match bi mais suñu borom moo tuddee nii mais du question ne dañu bàyyi wala dara parce que joué nañ lépp aussi dama jël dama rouge jël nañ carton rouge euh, am nañ de deuxième minute lañ am benn manquant d'accord na defar xëy na suñu borom lii la tudd quoi non changement yi non changement yi yokkul quoi parce que daanaka deux changements yi. avant ñu am soixante dix soixante cinq minutes soixante dix def naa deux changements yi troisième changement bi daal moo xaw a jël temps mais dañ doon xool bi temps rek na ci moo tax bëgg ñoon def ñett yëpp mu jeex dañuy def ñaar xaaral benn bi su dara amee rek ñu indi ko mu joué waaw juste kanam mooy euh, jël coupe dem comme joué ji phase nationale ñun loolu mooy suñ sportif loolu lañ bëgg ñun incha allah yàlla ko suñu borom dawal. merci. man Lamine Lo laa tudd nekk coach ASC Ocass. oui. waaw match bi dëkk ci yomb na parce que dañoo commencé amoon ay mal placement ndax ay kadda lañ yéegal avant ñuy comprendre match bi Santos def nañu yëfu mag pour dem dugal ay sa xandaalu di moins. léegi bu ñu demee ba deuxième mi bi ñu xam na erreur yi ñu defoon ñu rectifié ko changement yi ñëw ñu dox ci kaw Santos xam ñoo gën a féete ndaw ñu dox ci kawam léegi def mën nañ deux heures ñu égalisé doxaat ci kawam remonté ko. waaw yombutoon mais man xam naa sama équipe xam naa booy li ñu entraîné xam naa booy timit capacité bi nekk ci ñoom te Santos gis naa ne ñoom dimos ay seexandaalu ay maglan lu temps bi di gën a dem rek booy ñooy gën a nekk ci max bi. loolu moo tax bi ñu ñu dugalee 2-0 amoon na yëg-yëg ak gëm-gëm ne ASC Ocas dina ko dem ndax chaque année ASC ko gënee Santos Santos du ko gañ. li mooy dem génn suñu poule taxawaat waajaat ngir àgg huitième de finale bu ñu fa àggee dem demi finale ndax am loo xam ne dafa ñoo metti te yàlla moo ko doon dañ koy nangu muy Mourad Kane dañ koy rendre hommage mu nekkoon joueur boo xam ne Ocas la juddoo yoroo Ocas daf lu ne suñu borom mi nga ne mooy moom moom ñëpp jël ko ci coobareem ñu ko ñaanal fu mu tëdd yàlla na ko yàlla suñu borom war na seen Tuubaa dañoo bëgg jël coupe bi yët ko ay waajuram ñu xam ne muraat ba léegi ñu ñoo bokk nekk dem na de waaye mi ngi suñu biir ba léegi merci di féliciter nag ñëpp staff bi yëpp màggat ak ñëpp ñi xam ñoo bokk eh, équipe bi ak Fallou Galas merci